ndigal lii ñoo ko tax a waaye jëm ci cépp koo xam ne na ko sëriñ bi waxoon rek mbégam si mbégam mooy bokk jullit yëpp ak bokk réew mi kon sëriñ bi nee na ñëpp di ndokkee ñëpp ci gan bu mag bu tëdd gi nga xam ne mooy bëgg agsi di weeru safar te weeru safar bu ko tuddee ñëpp xam ne xel yëpp dem fukki fan ak juróom-ñett mooy bis bi nga xam ne ci la fi sëriñ bi bàyyi ko woon.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 mooy bis bi nga xam ne sëriñ Touba ko santaane doon boppam santaane di jëmu ci sant ko sa ëllëgee waaye ci boppam la ko tàmbalee ndax dégg ngeen ci taarix Serigne Moulay buso béy wi nga xam ne magam Serigne Mouhamadou buso bi xelew Serigne Bakk Bousso moo ko joxoon Serigne bi àddee jaarale woon ko ci moom Serigne bi denc ko ko ba soppi lu ko am xar.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 suñu boobu lépp lu mu santaane lam lam jublu ci ndigal la moo ko xam waaye Serigne Touba itam lépp lu mu ñu digal lu ne la tax mu dil ñu ko moo ko xam ndax mooy di gën ci ñun daanaam ba ko mag ñi dañ ko ne dane néew ma moo gën tabaski moo ko gën ci yéen loolu wax sëñ bi dégg ngeen ko ci suñu sari bu nekk ko kon màggal gi nañ xam ne bis la boo xam ne sëriñ bi doo ko fonkoon واحنا سبب غيبتي ان الله اراد ان انال منه الجاه وان اكون شافعا لقومي وان اكون خادما في الدوله كون لور رك تخم دم ليغي رسول الله صلى الله عليه وسلم موي ليغي بو تاد بو خامني سيرين بي واخنا ني بوكنا سي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بو كريو بو ليغي كون بيسو ماغلا بو خامني امور لو ني واخ فيري بو ني وانا واني سين واخ جي ندخ ميغي جاخس سون كاد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 Sëriñ Tuubaa jéggi naa noonu yëpp loolu la jëkk wax ba mu ne nekkee ci tuddi ba tukki ba di war a ñibbi si itam la bind ñaari bay ij'al rujuuhi ila qawmi saadatana wal takfina yawma jamiil xalqi niirana kon dellu gi mu dellu si waat mooy tax ak bindee fi waxaatit ne lii aw si li desi uridu wan faxi biyal wala yaa ma wax nii am faxi bari na fu mu ko bind kon bi mu ñibbisee nag yéene lépp la mu fa jële moo tax moo yëkkati woote bi nga képp koo xam ne bëggam sa bëggam baax na ko ci sant yàlla sant la yàlla ñaanu Sëriñ Tuubaa nag lépp lu mu digle rek suñu borom koy def ci xol ju nangu ko ndax ñëpp maase nañ ci xam ne màggal Tuubaa nekkatul yëfi yoonu murit waaye ñi wax ashhadu an laa ilaaha illallah ñëpp maase nañ ci nangu ko xam ne seen ndama xam ne seen bisa xam ne seen xetlukaay la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 nawaytu shukruhu bi fardin wa sunan indahuma wa inda daaratil minan kon lëkkaloo gi màggal gi xëttalu tàmbalee daaru salaam baax si daaru minan ak lépp sëriñ Tuubaa bindoon na nag noonu la ko sëriñ bi woo xam ne màggal gi ak kenn ku ci ne na nga koy dundal di sant di ko sant la yàlla ci bis bi mu ñibbisee Tuubaa itam ci ko njëkk wuutu ci ay doom di ak Cheikh Mouhamadou Moustapha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 ginnaaw sëriñ Saliou itam Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ñëw di njëkk a wutu sëriñ bi ci ay sëtam wóyule ko ne ko sëriñ Saliou Mbacké daa defe ba kuréel gii nga xam ne tey mooy saytu màggat bi yàlla def ci biir ixtilaafam lañ ko tàmbali am gën a gën ñu du ko doxal ba yàlla def mu wuyu ji moom itam ak Cheikh Sidi Moukhtar Mbacké ñëw moom itam wóyule ko wóyule ko ne ko kilifaam yi njëkk daa defee.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 muy loo xam ne ñoom ñépp ko ko yéene waaye moom li mu waxaloon fii boppam ci jataay bii rek mooy su mësuma ko séntu mësuma ko xalaat ndax ku ne xam na ne toog na ca màggalu Porokhane ba àgg ci wax di wax ci diggante ak Cheikh ba àgg ci xaw wax ne bu soñoon jiitu ko kon loolu te Cheikh Sidi Moussa dégg naa ci lam li moo seereel ko ne képp koo xam ne yëkkati nga àddee ba ko jox Sëñ Tuubaa boo gisee Cheikh Maodo Mountakha bu ko fa weesu ne sama jëmm moom rek ma ci doy sama digga diggante njabootu Sëriñ Tuubaa gi de saxaabatu rasul la leen suñu borom wax taggewoon ci rek moom la leen yàlla defal mooy wa yu'thiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasatun loola itam jabaru Sëriñ Tuubaa moom la leen yàlla defal ndax moom fi moom mi fi nekk Sëriñ Tuubaa kat jabaru Sëriñ Tuubaa jëpp ko maase nongul ko ñoom ñëpp maase ci yéene ko jotaay kon ñuy ñaan mu yàgg fi loolu ànd ak kon nag xam naa ne wax ji du gudd xanaa sant rek la la ñuy njëkke cant gi kilifa yi àndi woon kenn ku ne Sëriñ Tuubaa rek ngay xool ci moom kon sëñ bi ne seenu cant wax na ko bu yàggul ci Korite wala Tabaski seenu cant lott na ci wax leen ndax ñëpp xam nañ cër bi ñu ko jox nee na kon mu ngi leen sant leen gërëm leen ñaanal itam bu baax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 lam waxoon jàppoon na ni sax taxawal kër sa bokk ci biir jaay jaayante gi jaay doo Sëriñ Tuubaa ñoom dañoo jaay seen lépp ngir jënde ko ëllëg ñooña yàlla defe leen ba siirutu ba siirutu bu sori mooy ñaanaloo Sëriñ Tuubaa ndax xam ngeen topp sëriñ booba yombut kon ñëkk ñi ko topp nañ xam ne ay jàmbaar lañ yoo xam ne seen taxawaay boobee na ko alxuraan waxe rek allazina tabaxoo fi saati l usrati لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من قبل وقاتلوا كلا وعد الله الحسنى دونت لا نجي غناو امنا التوفيق وكلا وعد الله الحسنى واي ني نجي كتوب سن دو ني خام ني جوت ني نيب والسابقون السابقون اولئك المخربون كون موتاخ داماي واخني دي لين فاتلكو اك دي لين واختاني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 nañ ci boole taalibe Sëriñ Tuubaa yi ko jëkk topp ndax ñooñu seenu njàmbaar kenn xamul fu mu àgg ku xam taarix xam histoire xam nañ topp woon sëriñ ak fañ àggoon ci seen digg seen borom Sëriñ Tuubaa daan bi gaynde mëdla mi de képp ku mu topp ci sa ginnaaw moo suñu daara sa njaay ñun ñaa ñëpp daara wax ci ñoom képp kuñ topp sa ginnaaw war ngaa góorgóorlu baax ndax boo yeexee ñu weesu la jàll te am na ci ñoom kenn xamu leen am na ku ñuy wax Serigne Banda Sow da ngeen ko dégg ci waa kër Serigne ci ñoom laa ko la dégg Serigne Abdou Khadre ak Serigne Saliou ak Serigne Chouaib ñu ko fa mu ko doon tuddee ku dëddu woon adduna am na ci loo xam sax mënees koo nettali ci mbooloo waaye loolu Serigne bi da ko bari la ñoo xam ne seen cër yëpp dañ koo denc ngir ëllëg soxla daree at daree taw daree daree tay ñooñu ak leen fàttaliku di génn waa seen biir bokk na ci liggéey Serigne Touba kon Serigne bi neen mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. ci biir cant gi itam nag ginnaaw bu mu sante bokk yeeg taalibe yëpp mi ngi sant nag taalibe Sëriñ Tuubaa yi nga xam ne nag ñoom fu yoon wi àgg rek seen taxawaay ak seen pësëf ak seen doogu moo ko ndax xam ngeen ne kat la Sëriñ Tuubaa waxtaane woon ca jumaay jaari bi bu mu koy wote dama waxoon ne rikki nag maa ngi leen wattandikoo lépp ndimbal loo xam ne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 woote jumaay Serigne Touba ji booba jafe woon na lool ndax ci boo fekk na guerre 14 18 daa jeex tuuti Serigne bi ñibbi si Touba la ma waxoon ne bi Serigne bi ñibbi baat nit ñi dañoo def ñetti kuréel ñii ñëw ànd ak man ñii wan ma ginnaaw ñii na nañ ne tekk di xool ba xam dana danaa mën a dem déet nee na ba ma gisee loolu nag. ci laa laxasaayu jël jom ak liggéey teg ko ci sama kanam dem gor ay tool laxasaayu ba dem liggéey liggéey bu rëy ba yàlla def liggéey ba sont mu nekk kéemaan ci yooyu jamono nee na ña toogoon di seetaan ne kii kat gis nañ ku ko topp mu dem ku ko topp mu dem nee na ñëpp ñoo topp sama ginnaaw waaye ci jamono yi jafe jafe jafe la tàmbali liggéey jumaa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 ñu jub na ngir gertaloo ñaanu sëriñ bi moo jafewoon lool Cheikh Mouhamadou Moustapha ci jamono yu jafe noonu la ñëwee te xam ngeen ni jumaa ji boo suuf yi amagul titre foncier bokk ne ci yi ñu ko gàddoon bokk na ci raay bi ndax tubaab bi bi Cheikh Mouhamadou Moustapha di autorisation bi ndax xam ngeen ne sëriñ bi ngi njëkk bindu autorisation bi ndax moom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 sëriñ Saliou Mbacke daana ko nettali muy wax ju ko wax ju ko sax te yën ko waxtu ne dama ko fàttali biñ ñëwee di ko wax na ko dangaa waroon wax sëñ mu soppi leen ndigal ndax fii jamono toll kenn amatul dara te guerre bi am tax ne seng ñëwut yaakaar naa bu ma jóg 1918 la loolu du ko sori ak Cheikh Ibrahima Fati ne leen néew ma xaw ma seng ak fi jamono toll waaye yéen itam xamu leen sëñ Tuubaa ndax sëñ Tuubaa lépp lu mu santaane dana am te lépp lu ma digal dina ko بام كل جيء بلي جيء بعد لو شيء نأتون تلفون كل يوم لي جيء سري جينا وتم الشيخ مود فارد نيو فك ف الشيخ مود مصطفى تامبليون مو سوسي في لي جيء سري توا مي عند كون جبو جيب شي جامو لو نقري 1945 بو خم جاني جامو لو نيهوتوم دا نداف بو نوي جوتي بو شيخ سيب ديمي باي ba tool yi jeex kenn ku ci ne ñu jox la wu sas nga jox ko ñi liggéey noonu jumaa yi bu nawet bi ak sas léeg-léeg liggéey liggéey bi dana taxaw kon xam ngeen ne jamono ji neexugutoon lool lépp itam ngeen gis biirum Sëriñ Tuubaa ni mu dolli ko noonu la Cheikh Mamadou Fadel jëli liggéey bi ci màggam ju tedd ja woyal ko ba liggéey bi àgg ba mu indi ko natt dëkk bi ubbi yoon wi ba yàlla def ànd ko njabootu Sëriñ Tuubaa yëpp ba yónnee ak si fii ak si tey kon seen taxawaay yooyu lu mat di fàttaliku la ndax moom ak Cheikh Maodo Cheikh Maodo Moussa Cheikh Maodo Fadi Sëriñ Tuubaa leen digaloon jumaa ji Cheikh Maodo Fadi fekk la ko jëkk daanaka bind sëriñ bi ay leetar yu bare ba di ko laaj bi nga xamee ne nag sëriñ bi tàmbali na joxe na liggéey ci jumaa ji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 li ngeen di tuddee transparence tey loolu ñëpp ko war a ñàkk ci ñoom te booba dafa daaj ay gaan def ci ay xom ngir bañ rek addi yi ñu koy jox mu jëm Sëriñ dara di ci laat bi jàdd benn danaa ne alal yi jëm Sëriñ Tuubaa wala ko ko dugal furul ci yëfi Sëriñ Tuubaa yi daanaka toogee kon ñoom xamoon nañ li yoon lu ba moom itam mu def fi liggéey yu bari yoo xam ne forom bi teg si ba ginnaaw bi tam Cheikh Abdou Khadre Mbacké ñëw xam ngeen yàggul fukki weer ak benn rek la fi def ginnaaw bi tam Cheikh Saliou Mbacké ñëw moom itam wéyal liggéey ba nga xam ne kilifaam yooyu moo lañu ci sumboon ba dem na ci sumb ko bokk na ci li defaat ci jumaa ji ak barabu sëriñ waaye assainissement bi ñuy wax tamit nga xam ne moo jaaxal dëkk bi sëriñ Saliou ci alali boppam moo njëkk génne lu mat juróom-benn téeméer bi ñoo def ko ci tàmm ñoo ci yooyu jamono ak yeneen yu bare bare ba sumb fi ay sumb yu ba bi mu fi bàyyi ko mu bàyyi fi lu fukki milliard yoo xam ne lépp lu ko def ajjee jëmale ko ci ku fi nekk Sëriñ Tuubaa moom kon loolu lépp tam mu wane seen jàmbar ginnaaw bi tam ak Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ñëw di njëkk ci seetu Sëriñ bi ko njëkk wuutu ci islam moom itam fa way juróom ya tegoon tànkam rek la ko teg ñaari at ak genn wàll yi mu fi am ñëpp gis nañ taxawaay bi ci biir yoon bi ak ubbiku bi mel ne way juróom li muy gàtt gàtt jëf na fi loo xam kenn du ko ci njàmbaar ak bëgg Sëriñ Tuubaa bëgg yoon bi gaa ne mu jën yitte ju mooy loolu ba yàlla fi ab liggéey mag ak Cheikh Sidi Moussa ñëw moom tam ba mu ñëwee fa ko kii fa kilifaam yi tegoon seen tànk rek fa la teg tànkam mooy woye liggéey bi ci taxawaay bu ma sëkk ba sumb fi sumb yi nga xam ne ñëpp teg si seen bët ji ak jumaay Dakar bi ak kër Sëriñ Tuubaa bi ci moo nga xam ne sëriñ Saliou moo moo ko tàmm doon joxoon ndigal waa Bandew Foussou waaye màggale lépp ba naal fa ay boppam ba lépp sotti ci kanam ak yeneen yu bari yoo xam ne jotaay bi laaj bi dugg li mu xëy na ci biir màggal bi ñu ci ñàkk kenn ku ci ne waxtaan bu ñuy waxtaan teew ngir fàttali nit ñi sa jaay ak sa taxawaay ba yàlla def ab liggéey mu mag ak liggéey moom itam mu tegaat tànkam fa kilifa bi dogal seen tànk ci woy liggéey mooy àggale naa li nga xam ne bàyyi nañu ko fi Cheikh Sidi Moussa bàyyi na ko fi mooy jumaa ji ak jumaay Ndakaaru yi waaye mu sumb nag. sumbu bopp bu rëy yi nga xam ne manees naa wax ne moo fi desoon ci naali Sëriñ Tuubaa muy université bi ba mu ko somb yi muy naalu bu rëy rëy boo xam ne ba ba mu ko leeralee wax lim bi ni mu nar lu ñoo dañoo jaaxle ngir gis mbirum Sëriñ Tuubaa la mu waxoon ne bismillaahi yan moolu hay bilaa manaahi wala saa su xëyee rek ay mayam da yokk loolu laa jëfee ci diir bi mu fi toog gis ngeen liggéey université bi mu toll daanaka mënees naa wax ne la ci des sori na ba ci kàttanu yàlla sëriñ Ahmadu Badawi yi ñoom ñi nga xam ne ñoom la koy taxaw noonu jàpp nañ ne bu àndee dogalu suñu borom xëy na daaw sax lañ bëggoon waaye xam ngeen ndax day bari ak yéene xalaat yooyu ci sëriñ bi waaye bu àndee dogalu mën naa leen ji dina am màggal bi mu mu jëm ko. la ca war sëriñ bi ci taxawaay ne lépp def na ndax yëmul ci tabax bi waaye yëkkati na lu mat juróomi téeméer bi jox cinq cent millions wax ne dafa bëgg képp ku fi nekk Sëriñ Tuubaa ña fay ña nekk di fa dunde loolu nga du ko tàmbalee ba fu mu mënee am ku la ci fekk si door la door la caa fekk sëriñ bi nag ci biir taxawaay yooyu wax na ma fan yii motul fukki fan ak juróom ñu ne bu université bi jeexee daanaka àgg na mooy saa wax da cee ba ñu bu àggee ba ñu ubbi ko ba xel dal ci yor bi ndax xam ngeen yor bi yëpp li ko tabax li ko yor ko waaye incha allah xëy na balaa mat ngir bu gàtt wax ne dana jeex ndax da cee suñu ji lu mu ji ci xaaj bi njëkk bi bu xaaj bi njëkk bi ubbee nag ba mu tàmbali sëriñ bi nag yitte yëpp da ko jooyal ci ndoxum Tuubaa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 mooy ni ko so ta xamne ne dëkku Sëriñ Tuubaa bii fu mu agge taalibe ni Tuubaa ñoo ñoko agge ndax tay bo ron xol dëkk bi fi nek ci ay bâtiment ni dañuy tuddé bâtiment yo xamne bâtiment yu wóor la ñew na lool daanaka bâtiment officiel on fi lépp ni taalibe Sëriñ yo yokku lu fi nguur defit tàmbale ci suma ba na gëni da fekk taalibe bi jëf mu fekk si nañ loolu nag kon noonu nga xam ñoo ni la sosoo ñaan nañ fexe ba gëna goor goor lu ci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 ku ci ne yaa ngi def nga ko sa mbirum bopp def ko loo xam ne bëgg nga sa aajo faju ca xam ne suñu Tuubaa bi kon ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal ak yitte ji ngeen ci yàlla na suñu borom kàttanal dëgëral leen may ak fekk ak kenn ku ci ne la mu ci yéene ci bis bi suñu Tuubaa na ko na ko ñu ngi leen sant di leen bu baax di gërëm itam waa daayira Hizbut Tarqiyyah ñoom itam. ñu ngi leen sant seen taxawaay ci màggal ndax ñoom xam nañ ne seen lépp màggal ndax bu màggal gi jeexee rek balaa ma dugal danañ tàmbalee waajal màggal diw kon ñoom seen mandarga bi gën a fes yi ci des yëpp di ca doon mooy màggale seen taxawaay te loolu ñu koy defee ci màggal gi tam at mépp noonu lañ ko àndee seen bi ci yitte ak posté kon sëriñ bi daal ñu leen sant di leen gërëm di leen ñaanal sumb yi nga xam ne am nañ ko te ànd ko moom te waxtu ne sëriñ bi da leen seere ñoom ay soldat lañ rek soldat nak mooy koo xam ne sami naa wa ataanaa lu leen sëriñ bi xas digal amatuñ ci xalaat moom sëriñ bi leen ñu ngi leen sant ci seen yitt ak seen position seen taxawaay di sant itam waa daayira Muqaddamatul Xidma ñoom ñi nga xam ne ñoo am tawféex barabu sëriñ Touba bii di jumaa ji ñoo amoon liggéey ci sëriñ Saliou Mbacké ak ñu ko fi wuti ginnaaw bi yëpp di taxawal liggéey di ko def ci na mu gën muy ñoo xam ne ñëpp xam nañ ñu doon ci sëriñ bi waaye dañoo jaay lépp jënd ko taalibe jël seen der teg ci bitti di sàkku ngërëmu Sëriñ Tuubaa te di ko ko seere ñuy ay jàmbaar yoo xam ne waxtu ne dama leen di wax ne bala ñoo xamoon seen jàmbaar de mooy seen digg bi ñu xëy ñaari fan yoo xam ne dañ koy doon kon ñoom seen yitte ak seen taxawaay ñëpp xam nañ ko ndax walla yaxaafoona lawmata laa'im li ñuy def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 am na ñoo xam ne biir Tuubaa yëpp daaw yu sori daal biir kër Sëñ Tuubaa gii ñu toog waxtu ne dama koy fàttali mel na mag moo xam daa def sori ci biir kër gi kon loolu itam waruñoo gën a bëgg lu wax te ñooñu gën a jàmbaar ci jàmm yàlla foofu kon nag xëy na fañ àggal bu ñu fa ak waaye fu ñu sumee seen tànk war nañ faa def suñu tànk kon ñu leen sant ñoom itam di leen gërëm di leen soñ bu baax ñu gën a góorgóorlu ci liggéey bi te xam ne liggéey bii kat sëñ Tuubaa ko tax di ko moom kon lu ñuy defar nañ koy seere sëñ bi di sant itam waa daayira Tuubaa ci kanam ci seen yitte ju kawe yi it seen pëseef ak seen taxawaay ndax xam ngeen ne day bi yàggut daanaka ëpp juróomi at wala juróom-benn at 2016 du ko sori xëy waaye gis nañ fi mu àgg tey lépp loo xam ne Sëriñ Tuubaa bindoon na ko ca mbënd foofu ñu ngi jéem a gàtt lu ñaar benn fànn li ci mujj mooy poste de santé yi nga xam ne wala centre de santé yi nga xam ne poste de santé teg nañ xeeru keroog bisu tam xarit bi ñeenti poste de santé yoo xam ne fenn fu ci ne waxtu ne ñu ngi xool lu ñu jàpp ne dëkk bi manqué na ko ñu njëkkante ko kon ñoom itam ñu ngi leen sant ci seen jiite ak seen taxawaay ak seen possible ba ci assainissement bi nga xam ne tàmbaloon nañ ko. daaw daaw jig ba woon ci taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp ba nit ñi ànd ci ñoom loolee itam gis nañ lu bari wàññi na ko ci dëkk bi ndax boo jaaree fii ci tookooru suñu seex xam ngeen ne foofa ndox mi na fa daan rek bu ma saan taw kenn dootu fa jaar waaye fi mu toll nii jafe-jafe bi xaw am rek mooy bassin moo fees ci dellusiwaat ndax napp bi loolu dinaa ci ci biir wax ji waaye bu tawee tuuti rek buñ ñu taalee pompe yi lépp jàpp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 dawla islaamiya li ñuy wax dawla la waaye Sëriñ Tuubaa suñu borom may na ko loo xam ne mayu ko kenn ndax nekk ci daw dawla almaliya ba noppi sëb dëkk li islam bi bañ ñu ko fay tere loolu xam nga ne ci di ko suñu borom njëkk na Cheikh Abdoul Ahad ci dogoom ànd ko njabootu Sëriñ Tuubaa yépp ñu ànd signé yi nga xam ne bëgguñ bëggatuñ ko bëggatuñ ko gis dëkk yi muy dox nag ñu furutuwaat ginnaaw bi yépp ku ci agsi teg ci sa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 waaye lii moom li lislaam tere ñoo mën a saafara suñu bopp boo demee Makka li ñu tuddi al amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar daanaka mooy sëñ bi leen di santaat di leen gërëmaat di leen nga xam ne ndigalul waa kër Sëñ Tuubaa itam xam nañ ni ña ngi cay góorgóorlu waaye ni ci ñëpp ànd ne loolu moo ñoom itam ñu xam ne. Euh, suñu borom moom afa anta tukrihu naas xataa yu'minu moom looy digle moom dañ cee ne rek waaye nag nit ñoom kenn bu leen forcer ci ne faaw nga def lii Cheikh Abdoulaye Mbacke ca yooyu jamono dafa nga xam ne li nga digle nit ñaa ngi làqatu ko def li nga tere ci dëkk Cheikh Abdoulaye ne ko ah, man de digle tere rek ma ci wax ndax lii ma digle nga tere ko.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 هذا لو وراء بالأدب نوفي ما لو خادو منا لو وراء بيني بالأدب جيت جل من خدير خادو منا لو وراء بيني بالأدب كنا كنا من كن لولا أجاك لنا يا خميت نبتي وراء وين يوم تميلنا بيجي فين هو يبقى ما ديجي يا مثلا دائرة طول عمره يحين نعم نيجي خمني لبلي جم توالو خمكم جمني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 kon xam-xam lu ñuy defee sëriñ bi rek ci la war tege kon ñoom itam ñu ngi leen di sant leen gërëm ci taxawaay yi nga xam ne diiru ñaar fukki at yi ñu ngi def ci màggal Tuubaa ba ñi ñi ko ci biiru bi gën a gindi ko ci sëñ bi ñoom ñu ngi ci seen taxawaay bu baax rawatina sumbuur yi bi nga xam ne sëriñ bi teg na ko ci seen kanam muy jaanawaat yi nga xam ne incha allah bu baax day doog a ñoom itam seen yitte ak seen taxawaay rafet bi bu baax a ndax màggal yi weesu yëpp gis nañ ci seen teewaay ñuy góorgóorlu ci lépp loo xam ne war may dëkk bi la wala jàpp neen dëpp lu jàngale Sëriñ Tuubaa lépp luñ ci man rek ñu fexe ba ba gindi nit ñi ak leen teg coono ba ñi xamutul di gën a xam ndax nit ñi kat am na ñoo xam dañoo xamut dañuy agréé rek keneen di jàpp waaye ku leen gindi rek ñu ne ko kon ñoom tamit ñu ngi leen di sant ci seen taxawaay bu rafet di leen ñaan itam fañ bëgg yóbbu liggéey bu ànd liggéeyam daayira Xidmatul Xadim ñi nga xam ne ñoo ànd ak waa mu xatawu te xidma di seetal yoonu jumaa ñoom itam ma nga xam ne la kilifa bu baax Cheikh Ibrahima daa wax rek bu xamoon li ne ci buubu ëttu sëriñ kon nag bu ñu amee taw fexe di seetal yoonu jumaa nañ ci génne def yi te pour taxawaay liggéeyam commune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 buur yi ak chef de canton yi ñoo ko def Mansour Ndiaye bàyyi ko ñii ñu dugg taxaw kon ñoom tam nañ xam ne ñoo wóotu sëriñ bi ci fànn ko ndax àdduna jëkk àllaaxira ji duñu at wóor ñu tàgg kon nag ñoom itam sëriñ bi ñu jege nit ñi dox diggante bi ak njaboot yi taalibe yi ñu gàddaay ñëw fa kon nañu gën a jege di leen gën a diglu di ànd ak ñoom seeni jafe-jafe ak seeni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 wax naa ko la arcade mooy marché gaar bi xam ngeen ne bu ñu ko tàmbalee yàgg na la ci Serigne Saliou jubloo ni tam mooy marché Ocass dafa xat te mu ngi yokk di lekk kër yi dem kon bu soñoon ñenn ñi nga xam ne amuñu place yóbbu leen fa ngir foofu mën a fiix waaye gis nañ ne li ñuy wax saafara su jur jàngoor day bëgg nekk ndax nit ñi dañu fa yekkati ay bâtiment àggaluñ ko ba mu di ñoo xam ne def na naqari yàlla rek lañ fi def te loolu bu yàggee mën naa dem ba indi yàqu-yàqu boobu kenn doxam fu mu jëm kon loola sëriñ bi jox na ndigal jox leen ndigal nañ xool nuñ ko saytu bu fekkee daal laaj ñu toxal ña fa ne ñu toxal ko ndax barabkat buñ la ko joxee luy bëgg ba ñaata koy defoo ko dara wala soo ko xale wala ñu xool li leen leneen luñ fi may def ba mu dëppoo jox leen ci nañ leen jox dara nu mu gën a gaaw ñu seet nuñ defaree barab ba dindi ko. ba yéen yam fay dégg daal bëggatu fa dégg kon ñoom itam nañ ci def yitte te xam ne ndigalu sëriñ wax sa yëkkati ko la jeex nag ñoom ñoo jël seen responsabilité seet ñu ca man a taxawee ba loola saafara ko ndax loolu kat bu yàggee mën naa dem ba jur jàngoro jox ko kenn doxam fu mu jëm bu loolu jàllee itam sëriñ bi mu ngi yóbbante ak cant ak ngërëm di ko teg ci loxol ci jiite réew mi président Macky Sall ci màggal gi ak dëkk bi ndax sëriñ bi moom ni ma ko faral di waxee amul yitte bu yitte njaboot bi ak yitte taal bi daw ñaar nag ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ndax bi nga xamee ne nab bi sonal na dëkk bi doon yónni na ma fa ëpp juróom-benn waaye gis na ay yitte ak taxawaay yi nga xam ne def na ko ci ba tàmbali na ko day liggéey bu rëy rëy nag boo xam ne xam ngeen ne bu liggéeyee bu liggéeyee fukki fan wala ñaar fukki fan waaye def na ci jiite def na ci taxawaay kon sëriñ bi ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal ci barke suñu Tuubaa mi nga xam ne li mu fiy jëf jëmm ma tax yàlla na ko fayal boppam kon nee na sant na ko ci jàppale gi mu ko jàppale ci liggéey suñu Tuubaa bi waaye mi koy sant ci jàppale gi mu ko jàppale ci liggéey dëkk yi ndax wàllu ndox mi forage yi def nañ fi ñeenti forage lañ benn bi moom la yóbbu ca hôpital Matlaboul Fawzayni bi ci des mi ngi daal xudduus bi ci des mi ngi boobu rek bi ci des ngam waaye yëpp dañ koy ko ay réseau mu agsi kon loolu taxawaay la yoo xam ne mënees koo ñàkk seet ci yitte ji nga xam def nañ ko la ci des nag ndox mi resu bi xam ngeen ne dafa yàqu réseau dëkk bépp daanaka dara baaxatu ci wala li jëpp loolee itam ñaari at yëpp ñu ngi woon ci it daanaka àgg bu noppee sëñ bi waxal la boppam moom nag moo xam na mu ko bëggee na mu koy defee waaye nee na bu université bi jeexee moom dafa seen so ndax jafe-jafe yi am ci napp bi da ko yokk mooy ndox mi dafa jàllatu moo tax taataay yi gën a métti kon loolu sëñ bi nag ngi ci sant bu bu bëree bëri ndax dëkk bi dafa rëy kon loolee itam ñoom nañ ci bàyyi xel xam ne Touba day dëkk bu mag. boo xam ne li ñu ciy def lu ñu ci def rek yeyoo lu ko ndax dëkk bu Sëriñ Tuubaa dëkk bu fa ñaar ñi dëkkutoon itam yeyoo waaye li ci dëkk ci ay itam mat naa bàyyi xel bu baax a baax danaa ci desuwaat kon sëriñ bi ak taxawaayam ak yitteem xam ne ànd ko moom ginnaaw bu jàllee nag sëriñ bi ñu dugg ci programme màggal bi ni ñu ko fas def waa comité bi daañu ko gën a leeralaat waaye ci tënk rek ndax xam naa du ñàkk lu ma fàtte ndax doomu aadama dafa mën a fàtte waaye problème mooy li gën a sëkk rek mooy alxuraan bi nga xam ne bu weeru duggee rek na ko kilifaay bi daal diglee ñëpp dañ danañ ci maase ci ànd ko di jàng alxuraan ak xasida lépp ngir sàkku ci tiyaaba def ko ak addiya Rasulullah def ko addiya Sëriñ Tuubaa kon sëriñ bi nee na loolu ñu ngi koy fàttali ñëpp ñu gën see góorgóorlu ci nuñ gën a mën ci alxuraan ndax Serigne Touba kat luñ koy dàkkee rek nañ xam ne alxuraan ci ko jiitu kon seen bi nee ñu ngi sonj daal yëpp ak fu nit mën a nekk bu weeroo teeroo ñëpp maase ci dundal di weer bi te tàmbalee ko ci alxuraan alxuraan kër def ko addi Rasulullah ak def ko addi Serigne Touba waaye jàng xasida itam di ko def tawassul suñu digg sëriñ ak suñu digg ak Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kon nag ñu ngi ndokkee bu baax waa musaabaxa quraan bi nga xam ne rajo Safar xanaa bu weer duggee sax la ñuy seen liggéey ci xalaat bu rëy bu rafet boobu ñu am nga xam ne Sëriñ Tuubaa lépp luñ koy dàkkee ci lu jiitu ñu tàmbali ko leen ji ñu fas ko yéene ànd ak ñoom te di ci bu baax ñu am ci ndam lu ëpp ci ndam lañ ciy xam ne liggéey Sëriñ Tuubaa mu def daa wax rek yomb na. ndax day féetewoo coono bàyyi la seen bopp di ci turu co comité organisation bi itam ñu sant kuréel gi nga xam ne ñoo yor mbay mi ñoom itam suñu ci am bëri dama ko daan def ànd ko euh, waa kër yowatu maam Cheikh Ibra Fall xëy na Cheikh Ibra Fall li ak ñoom ñoo koy waajal kon itam loolu ñu ngi koy soññ bi yëpp ñu xam ne loolu. teg nañ ko seen loxo waaye ñëpp ko war a ànd ndax ñoom dañuy jëw ni ñu yoon waaye bu ñu ko tegee seen loxo rek dañ xam ne ñëpp ko war nañ ko daal di rek nañ ko wéyale noonu gën ci yokkaat pêcheur ndax ren dana gën na métti ndax fi mu toll xam ngeen dëkk bi mbedd yëpp taal fépp am ndox kon boo bëggee nga ci te xam nga dana tawaatam dén bëgg setal kon lu jafalee doon kon fu nit nekk rek na fas yéene lu mu ci daal def moo xam ne da ko war a yokk waaye nu mu daal méttee rek lan lay a ci biir loolu itam am na mel na ndaje bu waroon def daaru mën naa ndaje mu rëy la waroon waaye gàllankoor ba ci am xam ngeen ne sonorisation ba dafa xaw a jafe ñu joxoon ko ñenn ñu ko doon saytu di xool dañ ko war a defaraat toog toogu yàgg ak liggéey ko ba mu xaw a gën a méngoo dem moom nga xaw a gën a méngoo jamono yàlla def mu xaw a tardé allah xam naa ci màggal bi mënu fi ñoo xam ne buñ ko fa defee wax ji du mën a génn moo tax ñu di ko toxal bu dégg ndax euh, jataay ba am na solo boo xam bu ñu ko defee te lañ ci doon séntu amuñ ko ci doom njëkk moo tax ñu pousse ko ba dégg nañ am donte ne nag ñu ngi koy def yëpp kon loolu ak conférence yi nga xam ne nag ren waa daayira bu ba yaxam ci ànd ko comité organisation bi ak commission culture communication bi Serigne Abdoulaye ak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 loolu bokk na ci Serigne Mor Soxna Bousso bokk na ci ñi waxtaan ak Serigne Makhtar bi tudd ñoom ñaar ñëpp xam ngeen Serigne Mor Soxna ne bi fonk woon ak cër bi mu amoon ci moom suñu itam xam ngeen ne Serigne bi ba mu bàyyi ko ca géej gi bàyyi woon ak Cheikh Ibrahima Fall am suñu jaxat bokk na ci ñaar ñi nga xam ne Serigne bi bokk na ci ñi mu woon ndax Serigne bi day ko wax ne ko wax ne Maxtaar ñu ngi fi ñëw Aliou ju ju rafet la fi ndax ñoom xam ngeen ni dem ci wàllu jiite lan ma xamaloon la ci ëpp xamal naa ko bu ko it ba wóor naa ci ko si mu bokk ci ñi sëñ bi tey ànd naa moom Jolof ànd naa moom gànnaar ba ci njëriñ xam ngeen ci histoire sax bi sëriñ bi di teg eh, xeer bu njëkk ci njàkk njàkk njëriñ bi ñëpp taxawee. nee na ana maxtaat bint loo bi defaat ciment moom moo ko jox sëñ bi kon moom itam xam ngeen ak cëriñ ci yoon bi soo def fàtte jàmbaake moom sëriñ bokk na ci waxtaan yi nga xam ne ñu koy def ci moom ak yeneen conférence yi nga xam ne xëy def ci yoor yooru mag bi mooy itam nañ ko daan defee noonu lañ ko fas yéene ak conférence bi nga xam ne dañ koy def ci guddi màggal mu jëm ci al uxuwatul islaami ak waxdatul muslimin julli yi ni war a bennoo ndax xam ngeen ne kat innamal mu'minu ixwatun fa aslihu bayna axawaykum loolu ñoo doon Sëriñ Tuubaa nag fa dangaa koy faral di ko duune nag lu ñu koy defal lu ne fexe ba julli ji dajaloo bañ a tàggale ko loolu dara jiitu ko ci liggéey bokk na ci conférence yi nga xam ne danañ ko def ci guddi màggal di sant itam ñi nga xam ne ñooy waajal màggat bi ci biir réew mi ak bitim ndax léegi xam ngeen ne xëdëf ba ñu jubloon ci waajtaayu màggat bi léegi nii ñëpp dégg nañ ko ba bu agsee soxlawul sax ñu ñuy jig di déplacé dem ci ñoom waaye fu mu àgg fa ne yëg nañ ne màggat gaa ngi jub ñu di ko waajal di fàttali nit ñi lan mooy màggat ak nan lañ ca war a def ak bu ñu demee nan lañ fa war a def loolu nag adduna si ponk def xam nga ne tey boo demee masaari bi dinaan njiitalal sëriñ Mbackiou fa moo ngi koy def waaye ci réew mi yëpp damay bañ a lim waaye amul benn dëkk boo xam ne defu ba boo demee bitim réew réew yëpp moo koy def léegi waaye nag nañ fexe ba bañ a waajal màggal bi ba fàtte bisu mag ndax waajal màggal kat lu baax la waaye lii ndigal dina mooy bisu mag kon loolu itam seytaan yi dafa mën a rax ci mbir loolu loo yëkkati ci lu baax day làngal moom boo yaxee mu dugal la ci loxo ne mën naa jur gàllankoor bu yàggee ndax nit ñi dañoo xeer xeer nag ñaar bu duggee ci mbir rek mën na ci ay ndax da gis ñuy dem bay waajal màggal gi borom di fàtt bisu màggal gi dajale alal ju bari di ko waajal màggal gi te ma bisu màggal gi ak sa doole jeex wala doo ci mën bi def ju bari loolu mbiru seytaan seytaan yi mën na ca tàbbi ndax nañ xam ne lii ndigal dëgg dëgg nag mooy màggal gi lay la lu baax lu baax nag du caagee da ngay seet la gën a jub sam xel da nga dugal waaye lay ndigalee ci rek mbóot ma nekk loolu itam kon la ñëpp gën a bàyyi la ca des nag mooy jeexale ko ci war mooy dëkk bi dëkk bi Sëriñ Tuubaa dafa wax ne wacceetoo dëban maskana tibaa li sunnatin la maskana tibaa wa manfaan li kulli haadi muslim wa manfaan an kulli aadi mujrim waxaati ne wa xujjatan foofu itam يبرد يحوى حجة مباي دائما لكن ما ما حجة لمن بلغ في الإسلام ما يكين خلي بقنا دم مكة تأمر كتر من فعل نح ولله ولله على سيد البيت من استطاع لجده من استطاع يوم ما ما من من بلغ في الإسلام نحجة حجة سما أرادوا بجيب دخول بري يا كان حجة لا يبرخ وحجة لمن بلغ في حجة بجدته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 mooy daw nit ñi ak daw ñi nekk ci loxo nit waxoon na itam dëkk bi képp ku fi dëkk ku ne sa puju neex néegu ñax mooy nekk sa seere ëllëg këru ëllëg bu àjjana mooy nekk sa seere kër bu ëllëgee ci àjjana bi sëriñ bi waxee loolu wax ne ku fi sam xel indi wu sam xel indi la moo tax ñëpp buur rek gàddaay ñëw ci dëkk bi waaye bu ñu dikkee ci dëkk bi itam ñëpp dañoo gàddaa waaye ñi ñëw ñëpp dañ ci àndaale ak seen aada loolu nag indi na jafe-jafe bu dee ci dëkk bi ndax ko ne aada da ngay yoroon ci dëkk moom nga àndaale ci dëkk bu ko nekk ci bu buñ ko gàddaay ñëw ci dëkk bi dangaa war a bàyyiwaale say aada ñëw àndaale di fekk ci di fi suñu tubaab loolu nag kon xëy nga marché doomu aadama moo ci tàbbi waaye ñun ñëpp nañ gën a bàyyiwaat xay ci war mooy dëkk bi ndax ñu ngi fiy dégg yu bari yoo xam ne neexut kenn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 sagalu Sëñ Tuubaa itam nag te kenn ku yéene la Cheikh Mouhamadou Moustapha waxoon benn taalibe rek ba mu ko waxee na ko lu ma lay jàppale ci liggéey Sëñ Tuubaa moo ko li may jàppale mooy fexe ba defar sa jëm kon ñun ñu war a mooy kenn ko ne fexe ba defar sa jëm ndax lislaam moom dugg biir kër nit du xool na mu nekk waaye mbedd mi nag ndax mu ta jaaxir li ko bàyyi loolu lay bëgg nag mooy ñéem ñor te loolu suñ ndam lu suñu sag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 ku ci yor su jàngi nañ la tàggat yar na bu boo génnee man a amal njëriñ société bi waaye gone bu tuuti goo xam ne woogutu loolu ci waxtu alxuraan sax seen ko mu dawal dawalu bu màggee ci dëkk bi ak jikko yi muy àndaale yàqu-yàqu bi kenn doo xam fu bi santaane di diglee ter jëpp na maa def waaye ci biir kër gi nag kenn wax la ni nga a kon commune bi itam ñoom it xam ne loolu am nañ ci masuuliya nañ fexe ba tegaat nit ñi loolu ci yoon saree yi oto yi nañ xool fi ñuy jaar léeg-léeg nga romb ci mbedd moo xam ne yow si jëmm da ngay am kersa loolu itam ñun ñëpp ci am waaye loolu seen wàll la ñu nañ xool nañ xoolaat loolu nañ koy sàmm ak yu bëree bëri yu demee naa fi yi yi may dégg man mosuma ci dugg waaye nag da si yëf daal daa wax ñàkk ñàkk fe ñàkk fekke ku mu xam ne xew boo sa xam-xam gàtt na ndax nit ñi tam kenn ku ñeneen sëñ bi daa ci barab ngir nga ko saytu ak di ko xool kon war ngaa xam li xew waaye dajale ab sàll ay nit ne dañ fee tàggat seen yaram dafa dajale ay góor jigéen loolu rafet wax nañ nag ne bàyyi ñu ko waxee daaw waaye loolu itam ñu ne ci soñ ndax nit ñi di def boo yëkkati liggéey fa saa sa mën nañu waaye bu yàggee tuuti ñu delluwaat ak yeneen yu ñuy demee yu bari loolu mat day bàyyi na waaw ma xool mat xidma ñoom itam am nañu beneen métti lool ndax xam ngeen ne jumaa ji mooy li ñu gën a fonk ci àdduna Sëriñ Tuubaa fa dëkk te barab bu tedd la fax naa naa léegi indaka bi doon mu ko def nit ñi fi ñëw léegi di ko jàpp fowukaay ko agsi di di di ak di génne loolu man yaa ngi dimbali ne sax man yooyu du ma koy seetaan ndax damaa gis ne sànq ab dund la bi daa wax ne foofu la mënuñu fa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 war a am posture war a nammaat sa posture war a xam ki ngay fekk si lu mu foo koo xam ne ñoo ko njëkk am ku ma sa dugg ci dëkk bi da nga sumb see dal waaye nga dugg ci jumaa ji benn xemmeem teef lu ma fatoo génn ci biti loolu du posture bi dara ndax sa képp la nit nag bu lu mu yaakaar yaakaar caa jëriñu ëllëg wóoru ko foye nit du yaakaar du wax wattandiku leen miine ndax nit lu mu miine lu mu miin yëpp te lu mu yëpp lu mu yëpp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 waaye loolu nag ñu dañ ci am responsabilité ndax waaye dëkk bi ñoo ragal recensement ndax kër goo dugg booy laaj ñu la nangoo wax loolu nag dafa indi jafe-jafe bu mag ndax tax na ba indi na Tuubaa gàllankoor ndax gisee dëkk bi mbedd moo dugg mu ngay taal dëkk bépp koy yëpp maa ngi ciy wax dëkk bépp taal loolu xalaat leen bu ñu demee nii wax sëriñ ñu ngi ci biir màggal bu ñu demee ba àgg ci màggal nii ñuy déplacé wu kenn amul foo jaar te màggal gi des na circulation bi tam jóg loolu tam bokk ni ci li ko indi mooy li ma wax Tuubaa bu ñu ko bëggee jàpp dëkkub diine di ko di ko àttee noonu indi di indi jafe leen di indi jafe-jafe ñoom te Serigne Saliou Mbacké daana wax nag Serigne Touba ñeen ak màngoor yi mu ngi tàmbale ci yamale ñu yàlla yëmatu waaye Touba benn quartier képp da ko da nga koy génne ba ëpp département léegi boo ko bëggee nag ci département yooyu kon ñoom te day am kon loolu itam mën bàyyi xel bu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 amul école publique amuti fonctionnaire amul kenn kuy fay weer daanaka néew na fi loolu daanaka boo ci hôpital yeeg yu néew day jeex kon boo doon xool tey li état war delloo Touba sax day mel ni manqué doon bëri nga door dëkk ci tëli yeeg assainissement bi assainissement bi Touba tey waxuma la biir corniche bi sax waaye biir corniche bi képp la koy defee ëpp na téeméeri milliard kon loolu li fi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 يشيل جينا ويشيل ما كان يروح هذا يكبر يكبر عندهم ده سن إسلام من تابلون ده يكبر دور تامل ده موي لين يحنا كتابهم كلهم دفن ده دور تامل خمنا خلينا ما قبل دين لا دور دين دور ما دفن واي لو على بقى جيد ما تلي جد جد ده ده كبر دفن لما ده دور ده أنا كم لا كوي لين تون تيمير ميدا وين تيمير ميدا سن إسلام مو كويس غير نيب ما يتابعون يبقى مجه لين جد لين جد تامل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 nit ñi de li ñu bëgg dama ko mënut ndax ñi fi ñëw ñëpp soxlay adduna képp la ñuy wax te ñëw fi di wax sa te soxlay adduna yi ñuy wax te Abdou Diouf bee ci man dara te ma moom jërta xool seet la war a am rek nga di boo bu fekkee war nga leen wax dëgg nga wax leen ko boo war a sant sant leen boo leen waree ñaax waaye nit ñi moom lañ bëggee ndax bu fi Abdoulaye nekkee ci mujj boo tàggee boo tuddee Abdoulaye ñëpp mer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 jóge ci jumaa yi dem Mbàkke dana jafe yoonu dindi bi noonu yoonu janet mu waayu noonu yoonu daru si noonu kon yooyu yëpp itam nañ fexe ba circulation bi gën a yomb luñ ci gën a mën a doon taxawaay li jeexee cant ak gërëm yi ñu ko jëm ci ñi nga xam ñoo yor wàllu média yi ci seen taxawaay ci liggéey bi nga xam ne dafay ko te at bi ñu ko àndal ba liggéey bi mën a jot fépp ba ndax xam ne ñeneen si saal bëriwul moom bu ma nee àgg ci àdduna si seen taxawaay moo ko fàttali ñu ngi leen sant di leen gërëm salaamaaleykum wa rahmatullahi taala